maintenir rapport Cour des comptes bi génn na ci mbirum junjaac soxal lu toll ci fukki ministère citoyen yi ci lañ commencé di xeex dossier bi mu ngi ci table procureur amut lenn lu mu ci def sénégalais ñu am fulla ak fay dafa am lenn li nga xam ne Macky Sall moo ko diggoon askanu Sénégal muy lan muy une gestion sobre mu nekk xeex boo xamante ni askan wi ñoo ko jël état Sénégal mu ci génn tontu. le gouvernement donnera suite ci mbir mi gouvernement Sénégal dina ci def lépp lu mu ci war ba fu mu war a leeree mu leeree fa. améliorer les procédures. wante boobu ba léegi dara xew ci mbir mi nag jamono ji division des investigations criminelles moo ko jël dugg biir ministère des sports ministère boo xamante ni jamono ji mbir mi xewee Matar Ba moo fa nekkoon état Sénégal wax ni six milliards moo manqué ci mille milliards yi nga xamante ni dañ ko defoon ngir xeex li di mbas mi ci xaalis boobule 402 milliards la ñu joxoon ñi di ministère des sports rapport bi di wax ne 140 millions ci suñuy xaalis kenn xamul fu mu dugg Cour des comptes xaatim ni ministère bi ni mu doon jëfandikoo xaalis bi jaarul woon yoon ndax am na dépense yoo xamante ni kenn xamul fu mu dugg fi mu ne nii nag président fédération yu bëre ak kuréel yu yëngu ci wàllu tàggat yaram waa DIC convoqué nañ leen ngir mbirum nju njàcc enquêteurs yi nag woo nañu daaj bi laaj ko wante moom li mu wax mooy xaalis bu bëree lum ci génn fay ko ki nga xamante ni moo nekkoon ministre bi moo ko ko digal